boobu lañu ñu commencé andi seeni problème ñu ñëw ndakaaru fii même homme politique bi recevoir leen yéen ñëpp gis ngeen image ñu génn ci loolu bi ñu nee des na une semaine pour élection législative ñu ngemb leen foog ni mën nañ maa yàqal yéen a ngi fàttaliku jamono jooju Yewwi Askan Wi mi ngi doon organiser ay manifestation parce que dañoo dàqoon suñu liste titulaire ñu ne ñu duñ fi manifester dóor ñu fii ay lacrymogène barey fi ñaari nit kenn ki Ziguinchor kenn ki Bignona pourtant jamono jooju lañ leen ubbil ñoom fii buntu université ñu ne dañuy manifester fii ci rond point université bi nga xam ni nguur gi moo nekk seen gannaaw foogoon ni loolu mun na impacter ci Ziguinchor ba waa Ziguinchor ne ah kii de est-ce nañ ko woteel waaye bi résultat yi ñëwee gis ngeen ko mbir mi continuer noonu ñu continuer di réclamer mbir mi bi ñu nee dañu war a rencontrer samay conseil ne ma ah xale yi dañu ngeen Ziguinchor ne nañ dañu bëgg ñu rencontrer mais leen ah vous pouvez les recevoir bi ñu demee conseil dañ leen ne tooñ ngeen yéen a ngi tooñ te xam ngeen ni maire du ku ñuy xoqatal du ku ñuy wañ loxoom bañul continuer mbir mi mais il faut ngeen présenter seen excuse ba pare waxu cinq millions yi ngeen teg ko fële li wane ni bañu ñu continuer affaire bi mooy la bi ñu toogee léegi li ñu waroon fay ci luwaay bi yëpp fay nañ ko tey bailleur bi du leen ne ameel nañ ko xaalis wala arriéré kon deltu leen gannaaw ngeen jéggalu te ngeen bàyyi waxu cinq millions yi parce que maire du ko mus a fay ñu ne d'accord ñu ngi dem bind lettre excuse ñu dem bind benn lettre boo xam ne mënaase ci lu ne ñu wax ko ci ne su ngeen ñu joxul nag di ngeen xam ni ñun am na lu ñu mën ngeen d'accord dox leen loolu mooy principal problème bi manipulation politique bi ci nekk nag li koy firndeel ñaar ba ñett la bi ci njëkk mooy gis nga étudiants yi fa nekk yépp matuñu juróom fukk matuñu cinquante waaye état bi moo leen di encadré démb bi ñu demee ne dañuy génne lycée ba ñu ngi fekk benn camion policier ci buntu lycée ba fekk policier yi toog ci seen kaw camion wu ñu fa ñoo leen bàyyi ñu dem ne dañuy génne waa lycée bi jógee foofu doxaat trois kilomètres ci beneen école bu nekk euh, euh, suku papa yi génne waa xale yooyu nekk foofu ne dañuy dem def concert de casserole de buntu mairie bi romb préfecture romb fépp moo ne gannaaw barki démb préfet dafa woo euh, Basirou Coly nga xam ne kenn sama conseil la ne xale yi wax naa leen bu ñu génnee ñoom ñëpp ma defeere leen parce que du ñu nangu trouble à l'ordre public waaye ñëw nañ ma gis nee nañu dañoo bëgg médiation préfet moomu démb mi ngi woon Ziguinchor ñaata nit ñoo génne dañuy manifester foofu ñu dóor leen baru fetal li ci mujje mooy Abdallah Diatta mi ñu rey bi ñoo na ci mois de juin bi passé ak euh, nu mu tudd Goudiaby Idrissa Goudiaby mi nga xam ne moom it biir Ziguinchor lañ ko dóoree bal ci ay manifestation naka la lu mat juróom fukki nit ñëw Ziguinchor mën a ñetti tegle ñetti fan ñeenti fan di doxantu biir Ziguinchor naan dañuy taal ay pneu dañuy génn ay nit police a ngi fi gendarmerie ngi fi préfet ngi toog buroom ñu leen di seetaan ñu def ñoom sax ñoo leen di encadré te li gën a garaaw mooy ñun yéeg nañ ni jël nañu ay nit infiltrer leen ay militants ak ay nervi ay milice yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ci kan lañu bokk Ziguinchor rek ngay gis homme politique bu ñëw jël téléphone di woo commandant di ko jox ay ordre homme politique pouvoir bi Ziguinchor rek ngay gis homme politique andi ay milice ñu yor ay grenade lacrymogène ay milice saa wax de privé ñu yor ay grenade lacrymogène di ko dóor nit ñi Ziguinchor rek la am am na ñuñ ci dugal ñoo ñooñu ñoo fomenté seen coup ba jiital xale yi ñu naan dañuy dem lakk kër yaayu Ousmane Sonko Sénégal yëpp dégg nañu nee dañuy dem taal sama kër yaay dañuy dem taal sama kër man te doo dégg préfet yëngu gouverneur du wax commissaire de police du wax commandant de brigade du wax. ñoom daal sax ñoo leen di encadré ñu dem def li ñuy def demaat toog jàpp seen ñàmbur li Macky sal di waajal ci Ziguinchor 2019 ba léegi mi ngi ci bu ngeen gisee man su may dem Ziguinchor ci laay gën a yokk sama sécurité parce que projet attentat yeeg projet def lu bon Ousmane Sonko yépp physiquement ñoo ngi ko ñoo ngi koy dëxëñ Ziguinchor bu ko defee ñu ne ci ay mbokkam la ñoom ak ñoom la. lii moo ragaloon Sénégalais yu bari ba tax dañuy wax élection locale ñu bari dañ maa ñaanoon ne ma bu bu dugg ci affaire mairie nañu préparer 2024 waaye ku bëgg sa réew da ngay bëgg sa dëkk munoo bëgg Sénégal te yow fa nga soqe ko doo ko bëgg ma jàpp ni nag dafa am mission bu ñu waroon dox Ziguinchor te loolu waa Ziguinchor yépp a ngi koy gis bis bu ne ngeen gis reportage yi Ziguinchor ci diir bu gàtt liggéey nañ fa loo xam ne àdduna yëpp gis na ko te commencé ñu sax liggéey bi ñuy liggéey Ziguinchor lan mooy nag seen objectif ñoom moo tax ma ne Sénégal yëpp laay waxal rawatina ndaw ñi ñoom xam nañ ni ndaw ñi seen xol téeméeri ndaw yoo jël juróom-ñett fukk yi boo ubbi seen xol léegi usman Sonko dafay fekk ñu ne il faut ñu fexe ba. créer problème entre Ousmane ak ndaw ñi ba ndaw ñi commencé ne ah kii daal moom affaire am leerul kii de mi ngi métital ay ndaw comme ñun rawatina nag yéen étudiants yi may waxal waaye xam naa kenn mënu leen manipuler yow étudiant bi nekk Assane Seck Ziguinchor saa yoo buggee manifester buntu université sax dañu la bàyyi nga génn nañ la dóor lacrymogène jàpp ñu bari ci yéen dem tëji yow étudiant bi nekk université Dakar wala université euh, euh, Saint-Louis wala feneen boo génnee di ñaxtu parce que fay ñu la sa bourse te muy loo xam ne obligation la sa droit la wala ngay génn ñaxtu parce que njàng mi doy na waar wala leneen leneen ñu duma la tëj la kaso kii nga xam ne dañ ko doon dimbale kese du obligation gis nga tey te niñ ko yombalee ba mu ne mi ngi dem manifester ngeen war a xam ni politique la amul benn rapport ci cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci yéen kuy ndaw ci réew mi ngay étudiant ngay marchand ambulant ngay transporteur ngay euh, euh, euh, ouvrier ak bu mun ci doon ak loo mun ci doon sportif yow xam nga ban yéene lañu am ci yow xam nga ni li ñuy sonn ak li tax ñuy daj li ñuy daj ndaw ñi yéen ñi yéen a tax waaye ñun du suñu bopp kon man xam naa ni kenn mënuma leen féewaleen ak yéen li tax ñu bugg leen jaxaseeg ñun nag mooy li ñuy dëgmal parce que ñëpp xam nañ ni réew mi fi ko Macky Sall bëgg a jëme kenn du ko nangu ñu ne nag comme ndaw ñi bu xeex jotee ñooy jóg xeex bu bañ jotee ñooy jóg bañ nañu fexe ba yàq seen diggante ak Ousmane Sonko loolu mooy manœuvre bi ñuy def nii moo wax leen ni lii amul benn rapport ak ndaw ñi tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi may woo naan ma bul def bras de ak ñoom ñéeg ñéeg nii gis nga Sénégal ba ba bokk na ci lu ko yàq mooy masaha bu ëpp ñun dañoo déglanteeg yéen ni dañoo ñëw pour soppi réew mi soppi réew mi nag mooy su la yàlla jiitale na naxante na oyof na nga waxtaan na nga ñeewantal waaye bu décision jotee ci loo xam ne leer na ne lii luy defar la na am poigne bi nga war a am nga jël décision moo tax lii mënuñu cee topp ñii lañu ñu bëgg a def yéen ndaw yi ñu bëgg a boole ñun jaarale ko ci groupuscule ndaw yéen yéen a war répondre ci lii mooy cofeel gi dox suñu diggante ak yaakaar gi dox suñu diggante ndax projet Sénégal xam ngeen ni yaatu na suñu alal réew gi ñuy sàcc suñu démocratie gi dellu gannaaw suñu ressources naturelles yi ñu jaay suñu liberté yi ñi nga xam ne ñu ngi koy salfaañe loolu moo ñu booleeg yéen te xam ngeen ni bis bu réew mi tegoo suñu loxo réew mi dina defaru ci nii mooy suñuy ànd nañu ànd ci dëgg ñu bàyyi tappale bi bàyyi caaxaan bi ni ki ni ngeen ci mën a répondre nag mooy ma profité ci dellu siwaat ci manifestation ëllëg bi dama bëgg ndawu senegal gi yépp def mobilisation exceptionnelle pour wane ni entre man Ousmane Sonko ak ndaw ñi entre Yewwi Askan Wi ak ndaw ñi relation d'affection la relation d'amour la waaye surtout relation d'espoir la mais c'est une relation construite autour d'un projet c'est pas construit autour d'un homme li tax nag ma ne du ma séddee moo tax mooy boo ko nangoo ci lii xamal ni yeneen ak yeneen a ngi ñëw yoo xam ne li muy yàq dafay gën a bëri parce que pratique yi dafa yàgg pratique gu chantage pratique gu homme politique bu jël ay ndaw dajale leen di leen def defloo may wax nag waa Ziguinchor jeunes yi nekk Ziguinchor jeunes yi nekk ci lycée bi bu leen kenn manipuler ça c'est pas combat jeunes yi nekk ci collège yi bu leen kenn manipuler ça c'est pas votre combat yéen xam ngeen yéen gi ma am ci yéen xam ngeen li ñuy liggéey Ziguinchor ma yaatal ko ci waa Ziguinchor yëpp man balaa may nekk candidat Ziguinchor dama ñëw Ziguinchor def référendum ne dama am samay condition man rek maa ko def man ne dama am samay condition pour nekk candidat lii ak lii ak lii meeting boobu ñu defoon place de Mbeya ñëpp jógandoo ne d'accord nañu say condition ma am lu ma diglanteeg yéen am liggéey bu ma sumb Ziguinchor te laajuma leen dara man jëluma salaire u Ziguinchor neuf cent mille yi maire waroon jël jëluma ci dërëm jëluma carburant Ziguinchor maa ngi dem maa ngi dellusi samay moyens bopp laay jël di def li may def biir Ziguinchor amul kenn li ma waroon jël Ziguinchor yëpp delloo naa ko ci Ziguinchor lii ma dugal ko ci économie sociale et solidaire pour ñu jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci ay financement je ne coûte pas un centime à Ziguinchor man waaye yem ma ci loolu pexe bu ma am wër naa fu ne seet ay bonne volonté pour xool lu may dajale andi Ziguinchor taay la ñëw naa andi leen ñaari camion de ramassage d'ordure may ko Ziguinchor ñëw naa andi camion euh, euh, bu mag vingt may ko Ziguinchor ñëw naa andi pondeuse à pavé pour ñu mën a defar suñuy pavé ñun ñem ñun suñu bopp di ko def di defar suñuy tali may ko Ziguinchor ñëw naa fekk service technique amul matériel ma ñëw jënd lu mat dix millions ci matériel fii ñëw àndi ko pour nit ñu mën a liggéey li ma dugalagum yépp ci Ziguinchor soo ko doon xayma ay dizaine de millions la te soxla woon naa ko ci sama bopp fayekuma salaire jëluma carburant lu ma am jox ko waa Ziguinchor ban maire mooy def loolu fii nañ ma ci limal ñett musuma jënd benn billet avion boo xam ne ci xaalisu Ziguinchor kon yéen xam ngeen sama yéene ci Ziguinchor lay waree ni mbir mi politique la dem bi ñu defee seen daje am na ñu jëw jël parole ne Sonko def ñoo dàq ci mairie bi loolu ban rapport la am ak immeuble bi waaw maa dàqe parce que ñëw fekk 700 employés ci mairie Ziguinchor mu am ñoo xam ne dañuy xëy su ngoon jot liggéey ñu am na ñoo xam ne fii Ndakaaru la ñu nekk liggéey ñu dara mairie Ziguinchor weer wu ne ñu viré leen seen salaire loolu jaadu na ma wàññi ba mu tollook li ñu soxla ci mairie bi defuma ko par soxor defuma ko parce que waaye dafa am loo xam ne Sénégal il faut mu jeex. nit ni mu mun a nekkee fii ñu yóbbu ko ci siège parti jàmbur Ziguinchor di ko fay salaire loolu jaadu na nit ni mu nekkee mbuur wala kawlax di def leneen mais militant la ñu jël ko di ko fay salaire man ma wàññi te wàññi gi jeexagul lépp loo xam ne amul rapport ak mairie Ziguinchor mairie Ziguinchor mënu cee fay ay salaire salaire yooyu ma dajale noonu moom laa réorienté ci yeneen moo tax budget bi boo ko seetee ren budget bi salaire yi ak fonctionnement bi moo doon jël quatre vingt trois pour cent investissement bi di jël dix pour cent ren jii salaire yi quarante fonctionnement bi quarante pour cent la investissement bi yóbbu naa ko ba soixante pour cent loolu mooy tax ma defar école yi mooy tax ma defar poste de santé yi moo tax ma defar télé yi moo tax programme yi gis yëpp Ziguinchor waaye suñ jëloon xaalis boobu yëpp di ko jox ay nit yoo xam ne liggéeyu ñu amaluñu njëriñ Ziguinchor kon loolu dem jaxasoo ak étudiants yi xam ngeen ni loolu politique la amatul benn rapport ak li ñuy wax nii lii moo tax may leen duma dellu gannaaw ci li may jëf démb jël naa huissier jox naa ko ne ko na signifier propriétaire bi ne ko à partir de 30 du 30 janvier j'arrête le contrat 30 janvier j'arrête le contra man kenn du ma napp kenn du ma noggatu na leen état nag yóbbu encadré leen ñu dem taal Ziguinchor suñu bëggee bu dee mën nañ ko waaye 30 janvier mairie bi dootul fay contrat location immeuble étudiants yi nekk Ziguinchor bu leen locataire bi génnee ba pare ñaar ba ñett moo mun a am may dalal xelu Ziguinchor étudiant Ziguinchor yi ne leen duñ leen bàyyi waaye dootuma luwe immeuble boo xam ne dañ koy utiliser ci wàllu politique bu ñu génnee dinaa signer beneen contrat bu bees ak borom borom borom kër gi bu dee nangu na ko bu ko nangul dinaa jël beneen immeuble bu bokkul ak boobu waaye immeuble bi may jël étudiants yi dootuñu ko gérer mairie Ziguinchor moo koy gérer dinaa fa teg un gérant boo xam ne c'est un salarié de la mairie de Ziguinchor commission socialu u mairie Ziguinchor bi moom mooy superviser nu muy doxee étudiant boo xam ne nekk nga ci jafe-jafe soo ñëwee déposer sa dossier sociale ñu càmbar ko ba mu leer ni méngoo nag li ñu soxla ñu dugal la ci immeuble waaye balaa ngay dugg di nga signé benn charte mooy immeuble bi tere nañ fa lépp loo xam ne dañ koy jëmale ci mbirum politique immeuble kenn du ko utiliser pour def des combats politiques da koy signer bis boo violé loolu ñu génn la ci immeuble bi mais dootuñu jël immeuble di ko jox ay étudiants yoo xam ne dañoo am fu ñu bokk bis bu maire bi changé ñu andi fi ay coo yoo xam ne jaru ko loolu duma ko nangu du Ziguinchor du Dakar du Ziguinchor du euh, du Dakar du Saint-Louis du Bambey du Thiès gi ñuy waaj a defar loolu dootuma ko nangul kenn bi ma ñëwee Ziguinchor dama wax a Ziguinchor nii man mairie bi du ma fi politique moo tax du ma recevoir audience politique à la mairie je suis le maire de tous les Ziguinchorois sans distinction nanguwuma boole liggéey ak politique politique bu jotee ku nekk xam nga noo nooy tojee sa bopp janax homme politique yi nekk ci gannaaw ñi bu ñu demoon élection deux cent fois à Ziguinchor mu duma leen deux cent fois te duma leen dumee ay cinquante et un pour cent de ñoom xam nañ ko te du ma utiliser du ma manipuler ay étudiants ay jeunes pour gagner leen bu liggéey jotee j'ai une fonction administrative à Ziguinchor en tant que maire seetuma ci kii wala kële personnel boobu ñu ne wàññi nañ bi ñuy wàññi man dama ne rek adjoint bi nga xam ne mooy gérer le personnel dama ko ne defal enquête ba ñu xam ñan la ñu soxla ak ñan la ñu soxlawul xawma ci ku bokk ban parti politique mais am na ci ñoo xam ne wàññi nañ leen wàññi nañ leen maag ñoom ñoo màggandoo même quartier maag ñoom ñoo màggandoo même quartier bi ma seeni mbokk woo ne ma ah yow nag lii noo ko mën a defee kii nii ak nii man leen man xaw moon sax moom mi ngi ci mairie seetuma ci ku ma bokkal wala ku ma jege dama ne def leen un travail objectif bi ma toogee ci mairie bi bari na ñu ñëw ne ma diw ak diw ak diw il faut nga dàq leen ndax ñii ci euh, euh, cercle restreint bu Ablaye Balde la ñu bokk ci UCS man leen déedéet état c'est la continuité tant que ñi ngi def seen liggéey ni ñu ko war a defee am nañu droit nag am seen politique bu ñu génnee ci biti UCS lañu bokk APR lañu bokk sama yoon new ci mais fii su ñu nekkee ci biir mairie bi c'est des agents ils n'ont qu'à faire leur travail correctement man awma problème ak ñoom man lii mooy sama gis-gis moo tax dafa am yoo xam ne duma ko nangu huissier bi wax naa ko tey woo naa boroom kër gi ñëw na fii yéegal naa ko na ko signifier ni fin janvier je ne paye plus le loyer et on va reprendre en main cet immeuble génne ci lépp loo xam ne politique la ba nga xam ne vocation sociale bi taxoon ñu jël ko ci loolu la yem lii laa bëggoon waxtaan ak sénégalais yi ñu xam ni mbirum politique la te liñ ci jublu mooy dégg naa sax ñeen naan commerçant yi nee nañ dañuy def concert casserole saa bi moo ma jokkee ak commerçant yi ñu ne ñun de ñoo nañu ko yëgal waaye mun nañu manipule ñeneen ak ñeneen bi ma ñëwee di jigéen soo dama sumb liggéey acteurs yëpp ma woole leen am na loo xam ne mënatul wey am na loo xam ne. kuy liggéey di fay dara xam nga lan la ñuy fayeeku ñi ñenn ñi cent francs par jour muy trois mille francs à la fin du mois xale yi dawar Jakarta cent francs lañ leen fayeeku par jour nu mu tuuti tuuti nañ versé ñoom trois mille francs par mois xanaa kay kon benn jour lañ leen laaj tailleur yeek ñoom seen ñu laaj leen ko ñoom ñëpp receveur bi woo leen waxtaan ak ñoom ñu ne d'accord nañu fay boobu ba léegi ngi fay waaye am na ay benn benn yoo xam ne nee nañ ñoom d'accord ñu mais est-ce que jaar na nga nekk cim réew di liggéey bis bu ne nga ne tali bu baax laa bëgg bis bu ne nga ne poste de santé bu baax laa bëgg mais loolu fu muy jógee ci poche Ousmane Sonko déedéet kon liggéey bi ñu commencé dinañ ko wéyale te bu soobee yàlla Ziguinchor dina soppiku ba àdduna yépp xam ni soppiku na. parce que mission boobu lañ joxal jox suñu bopp noonu lañ ko amee yéene ci Sénégal bu dee yàlla dénk nañu ko mooy liggéey rek te teg ko ci dëgg ndax lii ñu commencé Ziguinchor réew bu développé foofu la jaar jub ak jubal kenn ku ne xam ni sama loxo dafa war a dugg ci mbir mi pour mu baax waaye dërëm gu ne na dellu ci citoyen yi du ngeen mës a toog Ziguinchor ba dégg ni problème bi am na ci am na loo xam ne maa ngi koy def semaine bi mooy damay saisir justice lan moo ko andi mooy ay njuuj njaat yi nga xam ne gis nañ ni am na ci ay pàcc lu mel ni état civil bi yàgg naa ko wax bi ma toogee daa leen ne ay waxu randal xaalis bugguma ko fee dégg ay waxu ut ay circuit parallèle bugguma ko fee dégg bis bu ma ko déggee damay jël dossier bi jébbal ko justice même su dee cinq mille francs la parce que ñun Sénégal il faut ñu jël habitude ni alalu mbooloo ba ko fa la tudd alalu mbooloo askan yëpp daje ñaq fay seen lémpo ñaar wala ñetti nit ne maa ko gën a bëgg man loolu il faut mu jeex fi kon lii mooy suñu taxawaay Ziguinchor te lépp ñu def ko ci ak xol bu yaa may wax nag ni ak lu ñu mën a sumb ñoom lii pexe Macky Sall ak ñi mu àndal mooy fexe ba ay affrontement am Ziguinchor diggante waa Ziguinchor ndax ku xam Ziguinchor xam ni maa fa ëpp ci ndaw ñi fuuf Ziguinchor dama fa am ci ndaw kenn amul un dixième bi te tey su ma libéré woon suñuy ndaw njaaxum mun na am barki de bi ma waxee ñoom dama leen ne bu leen fa bouger bu leen fa jege fii léegi nag dépassé wuñu limite bi buñ ñëwoon tey ne dañuy dal ci mairie bi police taxaw di seetaan régler leen bi bu ne dañuy attaqué kër jàmbur réglé leen cas bi waaye lu weesu loolu mbedd bi moom mbedd buur la bu dee préfet yoonam newu ci gouverneur yoonam newu ci yéen seen yoon bu mu ci nekk école bi école buur la bu dee bëgg mën nañu déloger lycée yépp ne jàng du am nañu def année blanche Ziguinchor ñu xool ndax Sénégal day taxaw wala day wëy ak ñu xool ndax man dina ma delluloo gannaaw du ma ci dellu lu toll ni tarfatayen lii laa bëggoon waxtaan ak yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant